xëyee dem di wuti dépense sax day metti kooku li ma koy digal wala ma koy digal soxnaam saa su góor gi génnee dem soxna si sangul ba set jàppal ba sell nga téye salaatu ala nabi yi di ko def day mujj kër gi day naat par force am na nag ku ma laajoon laaj bu am solo mhm. jigéen la mu ne ma ndax bu tollee euh, ci période dina mën di di def azkar wird yi ndax bu gisee ngant la waaw bu gisee ngant wala ndax dina mën a def salaatu ala nabi wala ndax dina mën a jàng alquran maanaam sobe boobu nga xamante ni ngant la di la tere julli terewu la wird terewu ko de ni nga ko daan defee bi nga nekkee set boo setul it mën ngaa continuer di wird say wird bu dee alquran la mën nga koy tari bu dee kaamil bi nag bul ko laal ndax laa yamassahu illal mutahharun alxuraan kenn ko laal waaye mën ngaa def sa salaat ñun ñu bëri dañu am application suñu ay téléphone mm-hmm. est-ce que pour laal ko il faut ñu jàpp même bu fekkee ci biir téléphone bi la nekk saa soo koy ubbi waaw moom dangay jàpp dangay am jàpp ndax kaamil la ah. alxuraan c'est bon à savoir application bi saa yooyu dugg ci kàddu gi ubbi war a yor jàpp waaw tey nag baax na booy jàng alxuraan. ubbi nañ ko ba tey te solo. waaw gars ko ba tey te jàpp. jàpp moo tax moo tax boobu insisté am na solo trop. mais daal yàlla dimbali la nga toog di jàng alxuraan. nga yëkkati sa téere bi rek dem seen nga xamante ni yaa ubbi application bi. application bi daal ni teggin te boo ko ubbi mu wóor la ni kaamil bi la mat na sëkk. Mm. na nga dem jàppi ba set. benn. ñu hmm? may envoyé message di laaj comme muuru muuru yi nga xam ne dañuy dem wuti këyit. Hmm. wala koo xam ne da nga dem wuti visa. yan léemaay wala yan ñaan nga mën a def pour mën a uh, am këyit yooyu. léegi nag tey laa koy joxe lii maye këyit. Hmm. këyit. pour ñu nekk bitim réew. te am maa koy maye ku nekk Italie nekk France nekk foo mën a nekk ci addina bi maa ngi nuyu sama xarit yi ne foofu yëpp. di seetaan di nuyu waa Amérique. waa alaaji ndaw maa lay wax bi ilaha illa huwa ñoom ñëpp fi mu ne nii dañoo bég laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim képp koo xam ne yaa ngi koy def guddi junni bëccëg junni junni mooy mille fois mille fois mooy kurusu téeméer gi nga wër ko dix fois looy wax laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim waaw junni yoon fa nga yem képp bu fekkee ni mënoo ko mënoo def junni suba junni ngoon del def heure boo jullee nga def téeméer. ah loolu yomb na di. waxtu wu na téeméer. moom kay nañu bind tey ren nii ñu si ñëw. Hmm. man maa ko joxe. képp koo xamante ne ni tàmbali nga ko may naa la trois semaines. ah waaw su koy génn. semaines sunu borom dana la dimbali dimbali goo xamante ne yow ci sa bopp dana la yéem xanaa xam nga ni këyit moo gën a tuuti ci lii lii ndax fi ne nii léeg-léeg boo demee Europe wala nga dem Amérique foo mën dem. Hmm. day gis ku yor këyit nekk citoyen ولا منك ناشونال تي فرانسيز ولا دارا مي دا لاي فيك منك اس دي اف سان دوميسيل فيكس لاي دون يو كي تاخوتا ابي خيول دغ لا نان نيان خيول يالا دغ لا دغ لا دي سيدنا توبا نينا عبد الله ونحو من الرحمن ليس من البيدان والسودان نينا لور اك جارين mi ngi ci loxol yàlla nekkul ci loxol nit ku ñuul wala nit ku weex. mais kayit gi tam tam day tax nga ñëw vacances Sénégal. maanaam kayit gi maanaam fi ne. <laughs> waaw am kayit am xéewal ba noppi am. xam nga kay jóge kay jóge lekk ko toog di sonal nit yi ba am loon kayit du ñëw toog. laa <laughs> hawla wala quwwata illa billah ali lazim. <laughs> dinañ ko def. macha allah. ku koy def junni suba junni ngoon nekkal fii TFM di fi liggéey te teg ko ci njub kenn du la mënal dara. ndax yéen a ngi dégg. nekkal ci société ba di liggéey. laa xawla wala quwwata illa billahi aliyil azim nga di ko def. ku yàlla bind du la mënal dara. allahu akbar bu dee da ngay jékki-jékki sax di tiit. del teg sa loxo ci sa dënn fii. ci sa xol bi fii féete xol bi. di wax laa xawla wala quwwata. illa billahi aliyil azim. barka la waaw. waaw. dugg wala dafa am yu muy waaw moo tax muy yuuxu euh, sometimes da gis koo xam ne bébé la sax euh, xamagul dara euh, ñu naan la seytaane la wala dafay tiit wala dafa am yoo xamante ni moom lay gis ma bëggoon rek su fekkee ne am nga loo ñuy baaxee ñu ñi nga xamante ni ay yaay lañu lu ñu mën a gën a mën a def pour sàmm suñu njaboot bu baax a baax a baax pour sàmm njaboot farata sa njaboot aar farata jëlal sa doom li ci ëpp solo bi mu gëneegul jamono bi mu juddoogul maanaam bi mu juddoogul mm-hmm. nga koy tàmbali before muy ñëw ci àdduna waaw mm-hmm. bu amee bu yaay ji ëmbee ba yëg ni ëmb na rek mën naa bind benn kursi yu ayatul kursi. ayatul kursi def ko téere takk ko ba pare heure bu ëmbee nay tari laxat jaakum rasulun min anfusikum azizun laxat di ko tari chaque jour mu tari ko ëf ko ci ndox di ko naan ba mu mën ñeent fukki fan mu wut ko koy defal bis bu jot mu dem tànk ci ndox ñu tari ko benn laxat jaakum def ko ci ndox mi mu naan ko ba mu man ñeent fukki guddi. doo avorté neel benn. doo yëg métitu ëmb bi. te sunu borom dana la may nga am doom ci jàmm sa oom dana sedd guy. moom la xat jaaku. leer na. Mhm. bu juddoo. sopp nañu ci saa si nga nodd ci. nopp ndeyjoor bi. yow yaay bi. yow yaay ji boo ko mënee nga def ko. soo ko mënul nga wut ku la ko defal nañ nodd ci nopp ndeyjoor bi li xam ci nopp càmmoñ bi. suñu borom dana ko musal loolu ñu naan ay seytaaneeg rab ak xeet yooyu. Mhm. mu mucc ci lool mhm. bu demee nag ba bis bi dellu si ñu wutal koom xar léegi buñ ko watee wat googu karaw gi mën nañ ko peese ak xaalis. saraxeel ko ko ba pare karaw gi ñu gas fu fu fu fu fu fu fu fu baax ñu suul ko su d'accord borom dana ko musal ci yu bari. Mhm. am na tamit boo bu fekkee ni yàlla dogal na nga ëmb boo amee ñetti weer ñu taril la sóoratu Yuusuf ci sa biir dana tax doom ji bu juddoo mu nekk boroomu taar borom taar. léegi nag bu juddoo ci avant muy judd tamit bu nekkee ci sa biir mën ngay bind li ñuy wax ay toqantal ay ay ay kiis kiis kiis yaay dina ko naan ci bu ëmbee bu doom ji bu dewee it ba am doom mën nay naan kiis gi bu ko defee doomam di ko nàmp sunu borom dana ko may am xel mm-hmm. léegi nak bu doom ji juddoo mën nañ koo bindal suuratu falax ak suuratu naas suuratu falax ñu takkal ko ci loxo ndeyjoor suuratu naas ñu takkal ko ci loxo ci tànk càmmoñ mu nekk jàllawle ba pare nag yow yaay ji wala baay bi saa soo jëlee sa doom man ko nga tari ina anzal tari ko ci boppam di ko tari ci boppam insha allahu rabbi suñu borom dana la dimbali ba di nga ci